xarajtu a sabti saamil asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar mbokk yi bu ngeen déggee na nag xam ni tukki Serigne Bamba bi mu woote woon ni ñëw leen ngeen sant la ma yàlla fa tabarakallahu màggalug 2020 ñu ngi nii nag màggal ba ca suba ga di tàggatoo tàggatoo bu du tàggatoo ñaan yàlla may nu ay at yu bari ñu di ko fekkee Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàgg fi naal yi mu naanal maamam Cheikhul Khadim sama borom yàggale ko ci barke Serigne Touba te mu fekke lépp université bi yëpp yàlla na ko fekkee ba naal yeneen yi naal te nu ànd ko ak moom ci darajey Cheikhul Khadim ñu ngi fii kër Soxna Baali moom Soxna May moom Cheikhul Khadim waaye nekk fii nag ci appartement Soxna Assou Mbacké moom Soxna Baali moom Soxna May moom Cheikhul Khadim nekk nii nag ci en face jumaay Cheikhul Khadim ji mbokk yi li tax ñu àll wax mooy màggalu Serigne mbamba gi nga xamante ni la ma waxoon ne min jinne xasri doona man la muslimoo jinne yi nga xamante ni sa def na ñuy ay jullit sa borom tàggat na leen boole ma ak ñoom ñuy samay taalibe Serigne Bamba waxam jooju jamono bu nekk day confirmé wu màggal gaa ngi nii ñuy tàggatoo màggal ba ca suba ga jullit timis fa tabarakallahu ñanaaw yi ñëw di siyaar gis nga ku na xam na ni jumaay sëñ Bamba ji pitax yi nga xamante ni ñooy pitax yi seexul xaddim yi ju nu fi jug waaye ñu amee gan nag ndax ñanaaw yi nga xamante ni ñooy ay mbokki ñanaaw yi pitaxi sëriñ Bamba yi ñëw nañ màggal si ceeli yi ñëw nañ siyaar ba dem fa tabaarakallaahu jóge fi njugu bi ñëw ñooy siyaar noonu di doxal seenub siyaar la sëriñ Bamba waxoon ni képp koo xamante ni sa ndimbalul yàlla aju na ci yow ta nga dara texe ëllëg yow mal xiyaam saa borom dana boole ak yow loole dafa feeñ sax ci ñanaaw yi nga xamante ni namm na noo dem àjjana ëllëg mu ngi noonu sëriñ Bamba woote jullit ñi ñëw nañu la Seexul Xadim waxoon ni jamono bu ne sama ñaan saa borom da koy confirmer nit ñi di teg seen bët ku ne xam na ni 2000 feren aj Makka amul umra amul waaye màggalu sëñ Bàmba gi am na la mu waxoon ni kataballaahu tabaraka wa taala anna baytillahi alxarama tarfahul malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam loolu confirmé wu na la ren màggal gi fa tabarakallaahu képp koo xamante ne amoon nga ngant umra ji woo boo ñëwee màggalu sëñ Bàmba gi am yoolu umra képp koo xamante ni am nga ngant ba aji jiwoo boo ñëwee ci màggalu sëñ Bàmba gi am yoolub aj képp ku màggal bisub kem ba aj nga umra nga am nga yool ba loolu la Serigne Moussa Ka waxoon kon mbokk yi mi ngi noonu ñu leen di ñaanal màggaluk déwén ak jàmm yàlla nañ ci yegg ak jàmm deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq ba deux mille soixante ñu fekk ko ci barke Seexul Xadim yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñaanal soxna Asu Mbàkke moom Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma moom soxna May moom soxna Bali yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci barke Seexul Xadim ñu nekk nag ci kaw appartement bi nii jàkkaarloog gi may sëñ Bamba gi Faaida TV nag di bi nga xam ne day màggal gi ba mu jeex du teel a dana dina teel a ñëw bokk ci ñiy mujjee dem waaye di wane liggéey bi sëñ Bamba bi ak tàggadooy dongo yi moo tax tey jii mu ñëw nag ànd ak ñun fii ci yi Serigne Bamba gi di wane liggéey Seexul Xaddim bi waaye tàggatoo gi nga xamante ni mooy ñanaaw yi Serigne Bamba yi njugub yaa ngi nii di tàggatoo barke sëñ Bamba njugub yi ñu ngi nii di tàggatoo pitax yi dalal leen léegi nii lëccëli yi ñëw tàggatoo bay dem kon mbokk yi daal nañu bàyyi xel ni Serigne Bamba wootem bi yaa ahlal barri yaa ahlal bahri mu joolil baari baari sa xaay yi ñëpp ñëw nañu kon képp koo xamante ni bëgg nga njégalul yàlla tey ak ëllëg teela la ñëw daw si ñëw ndax quluubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna maaraama walal baaba yàlla nañu yàlla defal jàmm defal la tawfeex joxleen rendez-vous wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf